mbokk taalibe ngi leen siyaar bu baax di leen ndokkeel ci weeru koor gi ñu nekk di leen ci baalu àq yéen ñëpp te di leen baal àq di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jéggal ñun ñëpp yal nañu yàlla may ñu fekkee ko at yu bari yàlla nangul ñu suñu koor ak lépp luñ ko ñaan ak yëngatu yëg dal yëpp yàlla def yal na ànd ak ngërëmal yàlla ci barke Cheikh Ibrahim yal nañu yàlla may ngërëmal Baay yàlla may ñu ngërëmal Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu yàlla may ñu ngërëmal eh, yonent Muhammad sallallahu alayhi wa eh, di wax ne Cheikh Ndiarka dafa ma am ay kàddu yu gàtt rek yu ma déey ci jotaay bi nga xam ne amal nañ ko ne ñenn ci taalibe yi ñoo génnee ci seen poos togg ay ndogu pour inviter seeni ay mbokk taalibe ak seen ay xarit pour ñu dajee fii bokk ndogoondoor yaakaar naa ñun ñu fi nekk ñëpp ñoo bokk benn daayira bi eh, di leen wax ne loolu sunna la yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi dafa am lu rëy mu ci wax koo xam ne jël nga benn tibbab ñam nga jox ko leel ko ku kiif yàlla dina la bindal moo gën tabax junniy juma te ku xool juma budget bi ci nekk pour tabax ko li ci nekk ci temps pour def ko ak li ci nekk ci coono pour def ko su dee tibb benn tibbab ñam leebal kon eh, nit ku xiif ah, moo gën loolu kon lii ngeen def pay ga yàlla rek moo xam naka la toll. yal na yàlla fay leen ko yal na xam na ngërëmal yàlla ndax eh, ku xiif mënta weesu ku oor ba ngoon te lekkut naanut kooku mooy ku xiif dafa am na xiif goo xam ne kii xiif bu paree du am fu mu lekkee du am fum mu naanee am na ku xiif koo xam ne soo ko lexalee mu lekk soo ko lexalee mu lekk soo ko mu lekk waaye loolu yëpp ay déggin la waaye ku xiif rek la yàlla wax ku xiif nag comme moom la yonentu wax kon kon nañ jàpp ku xiif rek kon ku xiif bu ngoon jotee dog jot nga jël sa alal nga leyal ku ku ku war a war a dog yàlla dana la bindal tiyaabooy ku tabax junni juma kon nag lii initiative la bu baax xalaat bu rafet la buy boole ay mbokk taalibe di leen dajale man nag dama ko dafa ma wax ne naa wax ak taalibe yi pour ñuy gën a daje ci xadra bi di gën a góorgóorlu ca lii dafa neex ñun ñii tey ku nekk gis nga sa morom te gëj nañoo gisee ñenn ñi dëkk bi ñu tasaare séddale ko ay yoon moo leen jëlee fii ñu toxu ci yeneen i ay gox ñooñu dañ leen di jàppal ngant mais am na ñu fi dëkk nag ñoo xam ne seeni soxlay bopp moo leen toxal waaye du dëkk buñ toxal ñooñu nag li war ci ñoom mooy ñu góor góorgóorlu xam ne ay mbokk taalibe lañ ay mbokk taalibe nag suñ dajee dañoo war a bëggante dañoo war a saafoante dañoo war a dimbalante te yàlla tax euh, ma ne ko man su ngeen di xaar ci man pour ma leen di ressembler di leen dajale ngeen may wër da ngeen di sonn waxoon naa leen ko bu yàgg ba may nekk fii ak yéen ne leen góorgóorlu leen ngeen jege ma jamono dana ñëw ngeen bëgg a toog ak man mu leen foofu lañ toll tey du man maa leen di daw daw ma leen dama bëgg ñuy nekk tout le temps mais man dama leen libéré ni ma leen libéré mooy depuis ma nekk ak yéen libération ci laa nekkoon pour conscientiser leen bu ngeen amee seen conscience tranquille ngeen mën a dem xadara à votre euh, décision pas man ma leen di obligé ngeen di ñëw xadara ah ngeen dem wasifa pas man ma leen di exiger pour ngeen dem wasi wasifa waaye boo gisee ma leen di fàttali di leen wax ne nit day màgg donc képp kuñ ci joxoon tey euh, ijaasa itlaax tey mën na yar ay taalibe tarbiye leen ñu àgg ci yàllaa du àgg bu rafet kon léegi mag ngeen di daje nag di wasifa du man maa leen ko sant ndax Baye moo wax ni xaj tariqa bii li ñu ci war moo ci wax Cheikh moo ci war Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif radiyallahu anhu liñ li ci digee liñ ci santaane su ko deful yem ceeg ñëpp mbaa ñëpp tane ko ci loolu bàyyi rek ko sañ a wax waaye tariqa bi ñun ñëpp dañuy koy xaskanalee ah Cheikh na Ahmad Tidiane ndax moom la ko yonent yàlla Muhammad salaa salaam jox mu tasaare ko bañ act ba ñun. te lañ ñu ci waxoon ba ñuy jël tariqa ba dafa leeroon kenn ku ci nekk dañ la waxoon ne bu wasifa jotee da nga war a dem ca mbooloo ma nga dem wasifa ji nga d'accord su xadara jotee nga dem ca mbooloo ma nga dem hmm, xadara ci juma ca mbooloo ma nga d'accord lu dul ngant. kon nag fàttali baax na waaye li gën mooy dem ci sa sëriñ xadara foofu ndax soo ko gisee gis gi nga koy gisi rek yàlla dana la may ay tëbb ci moom yoo xam ne si zahira ak ci baatin bokkul ak boo ko defee yow kenn te sëriñ bi su fekkee ijaasaam it ijaasaam ijaasa bu wér la foofu boo ñëwee ci sëriñ bi yaa ngi teewaale ak yàlla parce que yàlla koy uutu ci léppam Seexu Tijaan moo koy uutu ci léppam Baay moo koy uutu ci léppam moo tax Seex Tijaan Sëriñ wax ne sama tariqa bi ku ko jël maa la ko jox moo tax ku xas jàpp tariqa bi kenn mënu laa dagg lu dul nga dagg sa bopp waa wala Seexu Tijaan dagg la hmm. loolu moo loolu moo koy indi parce que yow soo ñu la joxee ijaasa tamit nekkatuloo fa Seexu Tijaan moo fa nekk kon ku ñëw seet si sa sëriñ tiyaara ko xadara ak moom yàlla dana la bindal tiyaabo yooyu kon nag loolu la waxoon dinaa leen ko jottali di leen wax ne taxawaay bi macha allah ci gàmm giñ passé nii muy le trent avril bi ñu ñëwoon ci gàmm gi ñëpp kontaan nañ ñëpp na rafetlu nañ seen tànt bi ak euh, organisation bi ak euh, li nga xam ne mooy discours yi am ci ak gàmmu gi. vidéo bi ngeen def mu nekk loo xam ne euh, innovation la ci seen seen programme bi. na ko gàmmu gi léegi lu mat dix neuf personnes jël nañ kaddu ci gàmmu gi wax ci borom gàmmu gi ndax ñëpp suñ leen joxoon kàddu ci dix neuf personnes yi est-ce que xaj na ci temps bi te terewul ñi war a gàmmu gàmmu nañ ñi war a wax wax nañ loolu man dama leen di encourager. bu baax ngeen xam ne li ngeen di xalaatee di def man noonu laa bëgg dama bëgg ngeen di ah, di am ay di innover chaque instant ngeen di def lu bees loo xam ne nit ñi dañ ciy jàngee.